asalaamaaleykum mbokk téléspectateur Equivox TV ñu am mbégte ak bànneex rek di jàkkaarloo yéen saa su nekk nee naa leen nag tout temps nii lay demee rek ci seen journal de l'arène ma ciy ànd ak Babacar Babacar nuyu naa la. maa ngi lay fay soxna Ami. ci loo nekk. maa ngi sant borom bi bu baax a baax. yaa ngi ci jàmm waaw am naa jàmm maa ngi am mm. jàmm bu baax a baax. tawféex waaw alhamdulilah. lépp a ngi si tuute benn waaw. kon baax na tuute benn. <laughs> voilà mbokk téléspectateur yi ñu dem seetaan rek revue des titres daal di dellusiwaat. asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 25 janvier 2021 dañ ñëw ak ñu ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi du sunu làmb nag moom tey ka mu xëy dalal mooy Amadou Kati Diop ma nga xam ne nii moom moo yore écrit Ndakaaru moo xëy tey nag ñëw di wax ci combat boo xam ne daal moo war a dox ci diggante Tapha Tine bu Bawal ak nag moom la mu jàpp ci ñaari mbiri ci seen ay encadrement ci seen wàllum force seen technique ak seenub xeex lu ci nekk daal xëy na tey ñëw ci jàpp na ne ki nga xam ne nii moom moo di Tapha lu jëm ci wàllum xeex moom jàpp na moom Kati na daal soo bëggee dégg dëgg xeexam moom lu mu teg ci aw yoon la loo xam ne daal lu mu ordonné la waaye ki nga xam ne moom moo di di Boy Niang tamit ci wàllum xeex moom daa jàpp ne fi moom daa ko koo def dana jafe lool Amadou Kati Diop moo xëy tey ci sunu lamb daal daal di ko ngar daajoo toog fa di wax lu leer a leer a leer leneen loo xam ne ni ñëw na wax ko ci ñaari mbëri jàpp na ne tamit ci ay staff moom ne na tafaatin am na staff boo xam ne ni daal niñ ko encadré baax na Boy Niang tamit kazalika naka noonu moom itam staff gën le ko ko yombul wàllum doole tamit ne na tafaatin moom maanaam ndax am na force wala déet na moom du lu di nattable loolu lu nekk la ci moom waaye daal la amee mu mel ni ki daal Amadou Kati Diop tey moom xëy na ci yëglikaay bi di sunu làmb moom wax fa loo xam ne ni loo yaatoo yaatoo yaatu la leneen loo xam ne ni moom jaaxal ñi fi mu nekk nii mooy silence bi nga xam ne wala noppi goo xam ne daal jóge na ci état du Sénégal jëm ci làmb ji ndax nag boo bëggee dégg-dëgg boo xoolee saison baa ngi dem te fi mu ni nii daal dafa mel ni moom mbir yi leer defagu ko saa yoo xëyee daal mu ngay xëy di lëndëm wala boog saa su ne boog ngay gën a lëndëm daal xamaguñu gars yi ndax danañu bëre wala déet leneen loo xam ne nii sunu làmb ñëw na ci wala keneen koo xam ne dalal na ko muy tombe seen nekkoon fi mbër moo xam ne bëri na ba bàyyi bëri moom nag mu ngay wax ca ñamu daan que mu xëy lim nag bokk na ci dégool ma nga xam ne moo di bàyyi booy ñang moom daal xam ne na ne bëri nañu mu daan ko keneen koo xam ne nii moom xëy na ci yëglikaay bi di sunu làmb muy idaali ñëngi idaali nag moom la mu nar moom daal maanaam lamb ji bu fekkente ne deesut bëree fii moom la mu gis mooy làmbam ya nga xam ne tëgg na ko la mu def mooy jël ko yóbbu ko fa nga xam ne moo di ca Gambia bokk na ca Konya de Ronaldinho ak tournoi ba nga xam ne ni moom idaali ñi ngi tëgg na ko keneen koo xam ne ni moom xëy na di wax muy xaarim gajaga ci MMA bi daal la jàpp ne fi mu nekk ni moom la ñu war a def mooy boole suñu ay doole ngir nag fexe am benn ligue boo xam ne ni bu dëgër a lay doon ngir nag mën a yóbbu MMA bi ca kaw kaw a kaw moom mi nga xam ne moo di xaarim gajaga loolu la xëy tey di ko wax ka ca jongante nag ba am ndam muy rëg-rëg maître Dame Seck moom la mu xëy di wax daal jàpp na ne rëg-rëg moom yoon ma mu tege baax na tamu la mu gis tamit nee na nga xam ne nii moo ko di ko tàggat mooy ki nga xam nii moo di élève boo xam ne nii Mamadou Diouf la ñu koy wax ba tey bu nu continuer ci MMA boobu ca la ñuy des dem record record nag moom lam nu xëy jox ci information mooy ki nga xam ne moo di rëg-rëg moom ginnaaw ba mu kawatee ngalani fa nga xam ne moo di ca Singapour rëg moom xëy na tey mais bi bagaasam wutali fa nga xam ne moo di ca réewum États-Unis coach sam ba nag moom Sénégal gii lay ñibbisi yëglikaay bee xëy tey dinu wax lu mel ni ki noon waaye yemu ca de moom record wax nu tamit surtout fa nga xam ne ni daal fa la jaar ak rëg-rëg ci jàppale ba Reug Reug gagné la nga xam ne nii moom moo doon combat ba nga xam ne nii daal moom la doon jongante fa nga xam ne moo doon ci réewum Singapour yëglikaay bi di record a xëy ñëw tey wax nu ko waaye bu nu delloo fa nga xam ne nii moo di Equivox Lit TV wala fa nga xam ne moo di sunu làmb xibaar bi benn la muy génnug addina Boy Bambara mi nga xam ne nekkoon na fi champion bu mag a mag a mag mel ni ki nag mondu làmb ñu baree bari ñëwoon nañu ker doon ko gunge ci këram gu mujj mel ni ki nag seetlu nañ fa ku mel ni ki Pape Abdou Fall ak ka nga xam ne moom mooy Basirou xam ne daal bëri woon nañ fa lool ñëwoon gunge si ko ngir mu maanaam boog denc ko jébbal ko la nga xam ne ni moo di boromam moo tax nag am na ñoo xam ne daal ñu nga xëy tey di wax mel ni ki nag parcelle ga nga xam ne ni fa la génne àddina moom tristesse moo fa am mataar ba tamit mu ngay wax fa nga xam ne ni fa la ko mbir yi toll ci aw mettit ami collège jang tamit ñëw na ji wax ci mbir moo xam ne ni daal lu jëm ci lool ci relation yoo xam ne ex jëkkëram amoon na ko ak ki nga xam ne nii moom moo doon booy bambara mu mel ni ki nag tey moom boo xoolee yëglikaay bi moo tax defal na ko nataal bu am solo xam xam ne bu fees la jàppal le 16 décembre 1943 la gane àddina génn àddina le 22 janvier 2021 ñu koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana mook bépp doomu aadama ndax xulle yàllaa ko wax kullu nafsin saayixatin mawtin kon bu ñu yeboo rek nanu ne ci lu baax sax ci di ko jëflante te itam nag lu mu mën a doon ñu ànd ci ak humilité ndax nag kenn rek ka fi ne di borom doole mooy yàlla kulli nafsin sayhatin mawtin comme ni ko Babacar waxee rek bakkan bu ñam dund rek di nga ñam dee hmm. voilà Babacar nag fan ci démb barki démb sax laay wax hmm. ñu jóge rek ci tiis bu métti muy desee booy bambara Babacar loo ci mën a wax waaw lool daal comme li nga wax rek maanaam kullu nafsin sayhatin mawtin loolu nag du waxi doomu aadama waxi suñu borom la hmm. maanaam bakkan bu ñam dund da nga ñam de lu tooy da nga wow loolu nag soo ko déggee yàlla rek moo fi nekk waaw azza wa jal man moom rek moo fi nekk éternellement mhm. ñun ñu fi indi tamit ay jaamam la ñu wàccee suuf ngir lan mhm. ngir mission boo xam ne bokk na ci jaamu ko ngir mission boo xam ne nekk fi nekkin bu rafet mhm. defe naa ku la ci ne la nga wax danga ko dund ak moom te lépp mbaax la kon defe naa mbaax rek moo am solo ñun wax dëgg yàlla carrière am fekke wuñ ci dara mais gisoon nañ ko daal ci luñ mën a wax mu encadré ay xale yoo xam ne tey Grand Dakar googu bëri xale yu fa nekk ci làmb booy bambara moo tax grâce à moom ak ñoo xam ne sax ñu leen mag lañ ndax mbapat booy bambara koo wax naan la ñëpp jaar nañ fa kon yaakaar naa daal jëf ju baax ji nga xam ne jëf na ko na ko yàlla ful defal la fekk wala nga fekk ko fa di ko jàll ak njabootam di ko jàllaat monde làmb rek di wax ne lii de lis mission bi maanaam li ñu ciy jële comme ay leçon rek nañu xam ne àddina léppay jeex quoi ñu gën a jàppante te yàlla tax ànd te yàlla tax quoi ba tey rek ñu koy dooree ak suñu journal suñu làmb ñu daal di ñëwaatee ci dese ki nga xam ne moo di Boy Bambara keroog teewoon ngeen fa ba ngeen fa teewee dese ngeen fa ak ay personnalité yu bëri ba tey sax journal bi abordé na ko muy euh, mataar Ba ak ñenn ci artistes yu ci mel ni Ami Collé Dieng loo ci mën waaw loolu moom am na parce que man moom keroog wax dëgg yàlla ñi ma dégg sama micro def naa. Mhm. ku mel ni Tafatine bokk na ci. Pape Abdou Fall. Bour Guéwél pour Bourkhane Wade Basirou Babou te ñooñu ñëpp ak ñoo xam ne moo leen formé ñoom ñëpp defe naa ku ci ne wax nga ci moom la nga xam ci lu xam ne lu mbaax la lu ngeen seekoon kon defe naa ne Matar Ba it li ñu gis tey gis ko muy lu triste pour moom loolu moo waral parce que moom moo jiitu sport réew mi te ki génn àddina bokk na ci ñoo xam ne représenté nañ Sénégal yaakaar naa ci ful ci ci àddina bi kon defe naa daal euh, ñu ngi koy jàll encore une fois di ñaan yàlla rek xam xaare ko voilà bu ñu jógee foofu rek ñu dem ci combat ki nga xam ne rek moo di Boy Niang ak Tapha Tine kii dikkati Diop daal di ci dikk décortiquer ñu ko ci côté force mystique ak maanaam kele yi daal Babacar. waaw Kati Diop entraîneur écurie bu ñu nee Kati Diop suñu xel day dem ci Yaxya Diop Yékini mhm. ak Tapha Guèye ndax ku ci ne bi ngay def sa carrière dëgg-dëgg moo la encadré mhm. kon defe naa kàddoom ci làmb des koy war a bàyyi xel waa moom nag li mu wax leer na si ñaari mbir yi ah, mel ni que ñoom ñaar ci côté xeex. Mhm. ñoom ñëpp ay xeexkat lañ ndax kii bu dee Tapha Tine xeexam ordonné na Boy Niang waaw bagaar bagaar tamit bu leer la yor waaw maanaam kon ñaari mbër yi ci côté technique ci côté encadrement ci côté li mu ñëw ci ñoom lépp a nekk maanaam ay mbër lañ yoo xam ne wax dëgg yàlla du leen nattable ci ñu leen encadré dee su leen nattable ci xeex dee du leen dee su leen nattable ci bëre effectivement loolu moo am parce que yaakaar naa ne Tapha Tine tey bi mu ñëwee ci làmb man nga ne yàggul noonu mais dem na ba benn moment fi mu niveau bi mu yegg si liggéey moo ko fa indi ak mën a li ak bëreem parce que ñu bëri mën nañu gis combat Tafatine yu mujj yaakaar ne xëy na kii bëri bi bëriwul mais Tafatine defe naa bi muy daan El Hadj Diouf Iba Mar Diop façon jël ba mu ko daan kere ci stadium defe naa ku mënta bëre doo ko daan na mu daane basoka ak yeneen combat yu ko jiitu yoo xam ne nii na mu daane booy say ca Ibamar ca gazon ba faw nga mën a bëri dëgg-dëgg doon ko door ko mën a def kon defe naa ni mbër mu mën a bëri la di mbër waada que du taxaw nga naan ana mbër mi macha allah bu dee booy naa euh, moom it ba tey mën naa ñëw ci lu mel ni moom ndax moom dafa juddu fekk mbir yi ci biir kër gi parce que ñoom ñaar yëpp ay doomi mbër lañu booy ñang defe naa ne tey xeetu technicité am jafe na nga gis ko ak façon bi muy aborder ay combaam ci xale koo xam ne macha allah dafa technique am xeex bu wóor xam ay déplacement am xam kañ lay ñëw ci yow te itam saa bu ñëwee ci yow des fois bu la yeggee fi mu bëgg mën naam balaa ngay xalaat mu daan la kon ñaar ñi ñu boole daal wax dëgg yàlla ay bëreekat pire la ñu waaye mm-hmm. Babacar saison 2020 2021 lamb bi tëj ba léegi ngir lan feebaru covid 19 dina tijji wala du tijji ñu daal fi mu nekk nii daal loo bëgg li li am ba des moom mm-hmm. lamb ji moom ndax dina tijji ah man Babacar de bu amee dina ma bett mm-hmm. man li may wax moom man laa engagé deux mois parce que léegi mu mat ko wala un mois et quelque woote nañ fi ay conférence de am na fi daje am na fi wax am na fi wax nañ wax nañ ba fi mu nekk nii xam naa ñu doon wax dañoo mujj soon noppi déggatoo kenn ku ci wax te yaakaar naa ne noppi googu mooy laa xalaat ne boo sàgganee fa la saison bay jaare loolu daf naan lépp doxe fa tàbbi géej xalaatuma ren bëri am de foog foogaguma ko néew ma du am daay yaakaaraguma ko man bu amul du arrangé Babacar de ah, ndax ma arrangé dina bëri ñu dul arrangé bu amee itam yaakaar naa ne mhm. erreur du ko gën a rëy mhm. waaw pour man pour état bi parce que li tax ma wax loolu mooy fa ñu jaarale football ba jaarale fa yeneen sport ya ba ñuy pratiquer seen sport war nañ fa mën a jéem a jaarale làmb ji pour ñoom itam ñu xool nu ñu def pour pratiquer comme am na promoteur yoo xam ne pare nañ ñoom pour tëgg huis clos d'accord waaw Babacar ñu dem rek nga xam ne moo di tombé seen daal di ñëw ñun rek ci victoire na bi nga xam ne amoon na ko ci digganteem ak déggool di bàyyi booy ñaar de. déggool bàyyi booy ñaar ah noonu la demee. noonu la bàyyi ci booy ñaar de. déggool ah. déggool ah, mooy bàyyi Boy Niang 2 ah mooy bàyyi booy Niang 2 ah ok noonu la demee wax nga dëgg <laughs> tombe non non am sax dëgg pire tombe seen moom defe naa mbëru séeréer la woon boo ne nekkoon na fi def fay jaloore waaye li nag day rek xam naa ay temps xam naa ba ñuy gën a nekk jeune daan daje di bëre xam naa loolu fala la mbir ma amee woon muy loo xam ne nii ñu leen di ñaanal ñoom ñaar ñëpp rek gudd fan ak wér-gi-yaram muy dégul muy Boy Niang di eh, ak ka nga xam ne mooy tombe seen ak képp bépp doomu aadama voilà mhm. bu ñu jógee foofu rek ñu daal di dem ci euh, MMA ki nga xam ne rek moo di Khadima Gadiaga ancien lutteur daal di ne rek dañoo war a réunir li nga xam ne moo di force yi pour montrer une ligue forte waaw man daal su ma ko bëggee wax ci olof mooy la mu wax moom maanaam nañu boole doole yi fexe donc nekk ko dank nekk benn ku nekk la nga am ngeen ko ñu fexe li euh, MMA bi fii doole maanaam ñu am ligue boo xam ne ci la ñuy nekk ñoom ñëpp alors nag defe naa ne mooy am mooy am rek pour man mbir mën a sotti parce que moom mooy doole olof Njaay ko wax waaw lan nañu fexee daal xaw ma nag nu ñuy boolee ba ñu reconnaître euh, ligue boobu parce que loolu déjà amagul na buñ ci doxee ñoom yàlla mën a def ñu am ci ñu ci bëgg Mm-hmm. ba rek ci combat MMA ki nga xam ne moo moo di maître Dame Seck daal di dellusiwaat ci combat rëg-rëg ak Alain Ngalani xam na ne nag ki nga xam ne moo di rëg-rëg daal dina rek développer ay technique am rek pour am benn avenir bu rajo maanaam bu rafet. waaw macha allah kooku defee naa ne comme li ñu wax rek maître Dame Seck boobu waaw defe naa war na ci mën a parce que xam na ko bu baax mbir moomu. Mm-hmm. waaw naa ne ah ci wàllum combattant la daal ah, rëg-rëg nag wax dëgg yàlla comme ni ko ñooñu waxe rek technicien yooyu ak ñu bëri nañ ko gisee am nañ yàqin ne war na mën a nekk ëllëg benn combattant bu mag ci MMA parce que tax mooy gis nañ ko comme ni mu ko waxee keroog ku ambitieux la ku gëm li def la te loolu defe naa boo ko boolee ci li ngay def rek ça veut dire bu la yàlla dimbalee nga déglu nangu ñu encadré la war nga mën a yegg fu sori quoi. te muy dëgg. Mhm. Siteu Baye Fall bi daal di ñëwaat ak ci nga xam ne moo di Reug Reug conseil ya nga xam ne joxoon na ko ko kii di Reug Reug jëfee na ko am ci ndam. waaw loolu moo ñoom ñaa bokk ñoom ñoo bokk ndey bokk bàyyi rek parce que Siteu ak Reug Reug moom guddeeg bëccëg bëri na lu ñuy seq bëri na lu ñuy partagé muy ànd bu rafet defe naa kon bu Reug amee combat Siteu jox ko ci xalaatam ba ndam am ca defe naa loolu ndam lay doon pour Sénégal ndam lay doon pour Siteu mais itam lu baax lay doon parce que ñoom ñëpp ñoo bokk gox ba ñu dëkk muy entre jàmm gën caaro yi Lansar foofu benn secteur la defe naa lii moo lay wan ne kon rek dompat sax ci sot la bokk ni ko Olof Njaay di léebe muy loo xam ne daal encore une fois ñu ngi félicité Siteu di félicité Reug Reug parce que loolu moo lay wan ne rek ànd rek moo am solo daal bien sûr boo ko jéemee sax doo du du maanaam du mën a sotti parce que réew mi tëdd noonu mhm. réewum bool wala réewum bokk ndey bokk bàyyi la waaw waaw waaw man tey fufu laa xëy ndekkee nag. Babacar dafa mel ni fufu bi dafa diis de parce que yaa ngi nii tey moom. non déet fa xam nga xaw xamama dama di sénégalais mhm. man. nekkuma sénégalais ci teint nii de mais dama koy dund intérieurement dafa ne ci man man damay lekk non de non man sama xam nga ku ne sa bopp nga mën man sama bopp laa xam ñun ñëpp ay sénégalais lañu mais man dama non non non kiiwu ma sax de man maa am tey envie naan fufu ma xëy naan sama fufu bu subaa man naan naan fonde bu ma gisee ci rek mbubu ma lekk parce que je suis séeréer di bawal bawal yaa ngi dégg man yooyu mais ay café ak mm. ay yooyu moom du sama kii xanaa genn kafe ki rek mooy goog Touba gi goog daal moom xaw ma si barkeelu waaye à part ci des moom waaw bu ma gisee cere wala ma gisee neen moom dama ko fay bàyyi lekk ci cere ji quoi mm. waaw bool bool la kon baax na lan ngay tàggatoo waaw sant borom bi ñaan yàlla jàmm Sénégal yàlla na ko fi yàlla def ko ci àddina bi corona bi dem ba ñu mën a continuer dund suñu dund di wax rek ñu gën a bokk ndey bokk baay tàppe xol yi comme ni ko maam Dabax doon waxee sangu bi tedd bi yàlla na yàlla yokku leeram di ñaan jàmm Sénégal di ñaanal xalifa généraux yi yàlla na leen yàlla defal fan bu gudd ak wér ak njaboot gi yépp du ñu bàyyi benn xalifa encore une fois rek di jaalewaat aatu jaañ mm. képp koo xam ne jullit nga rawatina taalibe murit yi di ñaan yàlla yàlla na yàlla yokk ay leeram taam ñu si barkeem àddina moom boo fi nekkee nanga fexe am njariñ rek loolu moo am solo daal amiin groupe Equivox yëpp di jaale ki nga xam ne rek moo di Atou Diagne voilà fii la xibaar yi jaaree ndar képp rek ñu leen di jox dig daje beneen yoon incha allah Ah ouais Attention Jackson D'accord.